واجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم واجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi doon seetaan seen télévision Al Mouridiyyah wala ñuy topp rek seen télévision Al Mouridiyyah ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy euh, topp ci rajo bi ni ñu leen ko diggee woon euh, ñu ngi fii ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ci série plateau yi nga xam ne si ñu ngi ko fas yéene ànd ak yéen euh, ngir rek leeralal leen li nga xam ne si moo fi am akit moo fi nar a am ak ci bés yi di ñëw incha allah ginnaaw bu ñu passé inauguration bi nga xam ne ñu ngi koy waajal juróom-benni fan ci weeru février gi ñu dëkkmal incha allah ci atum 2023 loolu waral kon ñuy ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànk liggéey boobu sëriñ bi teg ko ci seen loxo. ñu di ko saytu ak euh, di ko doxal euh, kenn ci ñoom tey di euh, professeur Mor Faye Mor Faye mi nga xam ne mooy coordonnateur nekkit président Euh, bu conseil académique euh, bu euh, université Cheikh Ahmadul Khadim moom la ñu àndal ci buntu bi incha allah nar a seq ak moom li nga xam si moom mooy waxtaan tey suñu Mor asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah. Mhm. waaw kay ñu ngi lay dalalaat bu baax a baax ci sunu jataay fas yéene rek tàmbali li nga xam ne moom mooy wàllug inauguration bi bu inauguration bu ñu ko waxee kon dafa mel ne njàng mi dafay daal di démarrer même bu dul ci ñëpp it am ñoo xam ne moom dana démarrer ci ñoom bu baax a baax a baax ñu bëggoon xam rek njàng saaga moomu euh, naka ngeen ko nose ba yegg si fii ndax xam ñu liggéey bu yàgg la jékki-jékki rek euh, tege sunu kanam mhm. waaye liggéey bu yàgg la boo xam ne si yéen a ngi ko doon nos di ko def euh, fu ngeen ci toll ci jamono ji ak it lan moo doonoon wàccaay wi nga xam ne si jaaroon ngeen ci ba ak si fii tey asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant yàlla bu baax a baax sant yonent bi ak Sëriñ Tuuba sant Sëriñ Muntaxa di ko ñaanal bu baax moo yàgg fi te wér lool mhm. ci bak Seydina Mohamed mhm. Euh, di nuyu bu baax euh, mbokk yi mbokk taalibe yi. Mm-hmm. ak euh, téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi suivre Almouridiyyah. Mm-hmm. leen nuyu tamit en tant que équipe reporter journaliste pour Almouridiyyah. Mm-hmm. di am mbégte lool di participer ci émission bi reportage bi. ñu consacré ko ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. comme ni nga ko waxee nag day liggéey boo xam ne nii. liggéey bu bu bu yaatu la. bu yaatu la. waaye aussi day liggéey boo xam ne nii euh, projet bi mm-hmm. euh, euh, bu ñu xoolee ci baatin mm-hmm. ëpp na siècle waaw ah. <laughs> ëpp na siècle ah. parce que bu ngeen jëlee Mablu Fawzeyni ah. mooy xasi rek Sëriñ Tuubaa googu mm-hmm. te ñëpp xam ko li mu doon ñaan ci dëkkam bii mooy am daara kon daan daanaka liggéey boo xam ne nii ñu ngi koy tàmbali wax daal ay 1886 1887 bi ñuy sos Touba léegi day liggéey boo xam tamit Sëriñ Tuubaa taxaw nañ ci taxaw bu mat sëkk. Mm-hmm. ñu ko wóor tamit taxaw nañ ci moo lawalaw bu yegg si fii. waaw ah, moo tax daal man ni bu ñu waxee ci affaire affaire date daal ak i <laughs> ah, day day day yàgg. Ah, day lu yàgg nag. waaye nag li am aussi mooy. Eh. Sëriñ mun taxaa bi mu ñëwee. Mm-hmm. dafa sukkandikul ci li fi nekkoon. Mm-hmm. gën a taxawal daara ji. léegi nag loolu ay ay def na ci ay jéego yu mat sëkk. ànd kook murid yi. ak taalibe yi. Euh, depuis le cinq décembre bi ñu defoon pose première pierre. xam nga 5 décembre defoon pose première pierre 2018. 2018 waaye nag boobu nag ki diir boobu. Mm-hmm. wax dëgg yàlla am na ay jéego yu am solo yu ñu ki def. Mm-hmm. su ko nekk li fi newoon ay jéego yu am solo. Mm-hmm. muy liggéey boo xam ne sax euh, ni mu gaawee sax. dañoo dañoo dañoo jaaxal. ndaxte bu ñu gisee ay lu mel nii euh, projet yu mel daanaka ay at dana léegi mu ëpp fukki at. daal di dure mais nii nag moom dañoo seetlu nii 2018 ba léegi. Mhm. Euh, xam ne daanaka motul sax cinq ans. Euh, daanaka lu bari bari taxawal nañ ko. Mhm. te rapport bi njëkk a mhm. pare sax ci liggéey bi. ñu ngi ko jébaloon suñu Muntaxa ci mois de novembre deux mille deux mille vingt. maanaam daal ñaata ngi nii daanaka liggéey bi li ci gënoon bari. Euh, daal euh, ñu nekkoon ci nga xam ne daanaka programme yi. Mhm. Euh, moom pare woon na. léegi tabax yi moo ko soon te tabax yi léegi ñu ko ñu bari libre nañ ko. Mhm. comme yaa ngi wax inauguration mooy waa gi daan daanaka daal disposition yi waxoon yëpp. Mhm. jël nañ ko. pour que ak ndigal sëñ bi ñu mën a départ. démarrer enseignement yi nag. Euh, bu ñu demee le six inauguré complexe bi si xarit moo ko parce que gars yi tabax ñoom la gis ci sur le terrain mais yéen kenn gisuleen leen waaye yéen a ngi liggéey liggéey bu am solo tamit lu jëm ci wàlluk bu tabax yi paree lan lañ fi war a jàngale maanaam lan lañ war a jox gone yi ci wàllu xam-xam xam-xam boobu noonu nu ngeen ko nu ngeen ko tëggee nu ngeen ko nosé par rapport ak làkk yi par rapport ak yoon wi mhm. par rapport ak euh, diine ji nga xam ne moom la nekk muy diine l'islam waaw léegi li li nga nga li nga nga laaj day laaj bu solo mhm. Euh, laaj bu am solo la ñun ñun ñoo nekk comité pédagogique bi. ñoo nekkoon benn comité bon ñu tudd ko comité de pilotage restreint. Mhm. foofu lañ démarré. Mhm. Euh, comité de pilotage restreint bi nag amul ay commission. Mhm. waaye bañ demee ba nga xam ne liggéey bi gën a am daraja. gën a am ampleur dañoo def comité de pilotage pour mën a coppite ngeen dugg ci liggéey bi. ñu liggéey ci ay commission waaw nga xam ne daal ab université moom bu ñu ko wax moom daanaka euh, lu tax ñu koy wax mooy njàngale ma mhm, ñay jàng ak ñu koy ñu fay jànge mhm. ak njàngale moo tax waaw mhm. léegi nag euh, daanaka bâtiment yi gën a gis waaye ñun ci ci suuf def nañ ci ay lël yu am solo def ci ay séminaire yu am solo ak yu am solo nga xam la ci rote nga xam ne mooy programme yi moom lañ tënk joxe ko waaye ba tey ci biir loolu tamit dama bëggoon na préciser précision bu leer euh, mooy que ñun ci vision siñ Muntaxa la ñu sukkandiku ah. pour tëgg programme yi. d'accord euh, du ay enseignants yoo xam ni dañoo wéet waxtaan wax ni li dañuy def. Mhm. dañoo dégg bu baax li si Muntaxa bëgg. Mhm. ndax si Muntaxa euh, woote bi mu njëkk a woote. Mhm. daf caa wax ay bëgg-bëggam. Ah. ak vision mooy dafa bëgg daal tabax daal joo xam ne moom la ñu tuddee daal Sëñ Tuuba. Ah. léegi wax ñu lam lam ca lam ca bëgg. ak li nga xam ne daal euh, moom la bëgg. mooy te buñ ko mënee tënk rek mooy leen la wax mm-hmm. daa bëgg daal joo xam ne ku foo jóge mm-hmm. euh, génne ak xam-xam ak diine mm-hmm. ak génne métier léegi na métier moom ak xam-xam yi nag ñu tënk ko ci lislaam tënk ko tamit euh, yoo xam ne ne moom mooy bépp bépp xam-xam bu Tuubaa dañuy xam bu njëkk mooy lislaam ak li ci topp mooy bépp xam-xam bu am njëriñ mooy bépp xam-xam bu am njëriñ nag mooy xam-xam boo xam ne nii day jëriñ doomi aadama yi léegi nag comme daf na bëggoon benn système. Euh, ni mu waxee euh, ñi ne woon ca euh, déglu wax ja. Mhm. dañ koo dégluwaat bu baax a baax muy waa Rawdu Rayaahiin ànd ak suñu Ahmad yu ak daayira bi ak ñi nga xam ne ñoo teewoon ci ndaje ma mhm. ñu dégluwaat ko bu baax a baax xam ne comme li suñu bëgg mooy dama daf ni dama bëgg loo xam ne day day baasin lay tàmbale ba ñu jëbaxtan la foofu lañ la xamee donc moom li mu bëgg mooy foo xam dafay accueillir ay tuut tànk mhm. Euh, njobbaxtaan nag mooy enseignement supérieur moo tax loolu mu indi nag projet complexe ñëw taxaw uh-huh. moo tax léegi ci projet complexe bi uh-huh. euh, vision boobu mu joxe ak orientation mu joxe uh-huh. joxe tamit dafa bëgg koo xam ne nii bu génnee day am euh, diine xam mouridisme xam Sëñ Tuubaa xam yoon wi ak aussi am métier ñu ci la ñu sukkandikoo léegi nag tabax programme bi te fépp foo xam ne tolloo nañ ci liggéey bi ànd nag Sëñ Ahmad Badawi ñu jébbal ko liggéey bi moo xool ci def seen xool ay remarkam ak ay def ay ay ay daal ay recommandations. pour daal ñu gën ñoo teg yoon daal boobu daal yoon boobu lañu topp ba. Mhm. def ay rapports yu njëkk yi ñu jébbal ko ko. Mhm. yow lañ topp ba nga xam ne nii daanaka programme yu bari pare na mm-hmm. yow tamit topp ba nga xam ne bu ñu tijjee noonu mm-hmm. ki li ñuy sukkandiku mm-hmm. démarrer enseignement yi d'accord d'accord léegi euh, xam na bi leen sëriñ bi wooye parce que sëñ bi du mën a wax ak ñëpp faaw day am ñu muy woo waxtaan ak ñoom wax leen li mu bëgg euh, ngeen bokkoon ci euh, bi mu leen ko waxee ba noppi ngeen génn war a concerté wu seen biir war a waxtaan seen biir ñan ngeen xalaat wala ñan ngeen dem seeti ñoo xam ne war nañu leen a impliqué ci xam ne moom mooy projet bi lu am solo xam bu am solo la ndaxte li ñuy wax rek mooy euh, Sëñ Tuuba yàlla daf koo may may goo xam ne nii mhm. bépp domaine bu ñu laal rek mhm. dañ ko fekk ay taalibeem léegi bi ñu demee ba euh, xam ni li mooy bëgg bëgg sëñ bi mhm. dañoo daal di wut ay commission bu ñu wutee commission yi nag commission bu nekk ni nga xam ne ni ràññee nañu seen xam-xam ñu dugg leen ci ah. bu fekkee ne enseignement supérieur moom euh, dañoo sukkandiku ñi nga xam ñooy universitaire te dëkk dëkk bi ak université yoo xam ne ñu ngi ci réew mi mhm. ak ñoo xam ne bu bitim réew nga xam ne day mbooloo moo xam ne nii mhm. ëpp na ay centaine de yoo ay enseignants chercheurs yoo xam ne ñoo ñëw ñii dañoo am ay doctorat ci affaire informatique mhm. ñii nekk ay ay ay professeurs ñii nekk ay anciens recteurs parce que xam nga liggéey bi euh, seenu ngeen ci ñu mel ne professeur Lamine Gueye recteur la woon euh, Ndar ak euh, Bambey recteur Ibrahima Thioub ak ñoo xam ne nag ay doyens de faculté ay suñu Amadou Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni daal ñoo bokk liggéey bi mhm. nga ak bokk lëkkaloo ku nekk ak sa domaine de compétence ñu mhm. tëgg mhm. enseignement supérieur bi léegi nag bu ñu koy tëgg nag léegi ñoom tamit seen expertise feeñ na ci ndax dañuy xool li nga xam ne moo gën a baax ci affaire enseignement supérieur mu tëggee programme yi noonu. Mhm. Euh, ba li ñu jébbaloon ci sëñ bi ci ginnaaw. Mhm. noonu lañ ko ko joxee daal jébbal ko muy liggéey boo xam ne daal mhm. liggéeyu mbooloo la. liggéeyu mbooloo nag mooy ku nekk dem yéene. waaye li li ñu waxoon rek euh, ak sëñ Ahmad Badawi mooy tool Sëñ Tuubaa yaatu na yaatu goo xam ne ni ku ñëw dama bëgg a béy war nañ ko mën a fàkkal mu tàmbali ci weewu tànkam daal di béy daal ñun daal principe boobu lañ def euh, appuyé ci expertise murit bi ak ñoo xam ne tamit dañoo dégg liggéey bi ak seen yéene tax ñu dugg ci pour daal euh, euh, bokk ci liggéey ba ndax xam nañ njëriñ li surtout njëriñ li waaw surtout njëriñ li la mm-hmm. waaw kay léegi buñ ne par exemple ci wàllu ko projet pédagogique mm-hmm. nga xam ne mooy liñ fi war a liñ fi liñ liñ fi war a jàngalee mm-hmm. ñëw nga ci sànq ci ni nga xam ne noonu ngeen ko doon nosé euh, ak fi nga xam ne foofu foofu foofu ngeen ci toll bëggoon nga dellu siwaatal ñu rek ci euh, formation yi nga xam ne si nag waajal ngeen ko ngir gone yi fiy dugg étudiants yi fiy dugg wala gone yi gone yi sax mën naa wax ndax du ci ay étudiants rek am na ñoo xam ne amaguñu bac Euh, ñoom ñoom lañ ko fa fas yéenee waajal mhm. nga xam ne suñu génnee xay na lii la war a mën a def wala mhm. lee la ñu war a def wala lii dañ ko fi jàng wala lii dañ ko fi jàngale mhm. waaw loolu tamit ah, xam-xam bu am la mooy li ñuy wax offre pédagogique bi euh, ni ma ko waxee sànq rek mooy ni ko Sëñ Muntaxa euh, waxe bëgg ko noonu maam daal bépp xam-xam boo xam ne nii am nañ njëriñ fekk si diine moom ci la ñu sukkandiku pour bi léegi nag euh, bu ñu jëlee institut moom xam ngeen li ci nekk. alxuraan la tout tànk la six ans. Mm. foofu ngay tàmbalee. magalis moom mooy ñi jàng xam-xam. a waaye bu ñëwee nag université bi. Mm. Euh, dañuy xoolaat tamit euh, ñaari suñ mun taxa waxoon da cee taxawaat. Mm. ndaxte université bi muy université Cheikh Ahmadou Khadim. li ko lal mooy IEFR études islamiques et langue arabe. ñetti IEFR la. ñetti IEFR ak ñaari institut. léegi IEF bu njëkk bi moom lañu tuddee IEF islamique ak langue arabe dañuy mm-hmm. jàngale l'islam ak étude ci biir mm-hmm. ak kàllaama ak littérature arab mm-hmm. dañ koy jàngale ci biir léegi nag IEF boobu ñaari departement la am département bu njëkk ñu ko tuddee étude islamique ak bi ki des surtout ko langue arabe moom moo lal université bi te puis loolu day loo xam tamit lu logique la ndax daay Sëriñ Tuubaa moom alxuraan mooy lal lépp foofu lañ tàmbalee waaye nag ci côté IFR boobu am na yeneen IFR yoo xam ne nii ñu ngi koy jaglee ak métier ak formation professionnelle bu njëkk bi euh, ñu ngi koy tuddee IFR science agronomique ak technologie alimentaire muy euh, IFR boo xam ne di ko tax a jóg mooy mm. euh, jàngale affaire mbay mm. ak sàmm ak transformation ah. léegi ci effaire boobu nag am na ñetti département mm-hmm. bu njëkk bi ñu ngi koy tuddee IFR ñu ngi koy tuddee département Euh, production végétale. Mhm. maam daal euh, lépp loo xam ne mooy affaire mbay. Mhm. moom ñu ko jagleel. léegi benn département bi ñu ngi koy tuddee euh, département production animale. Mhm. maam daal lépp loo xam ne mooy sàmm. ak jur dañ ko jagleel. ak beneen département boo xam ne ñu ngi koy transformation wala technologie agroalimentaire. maam daal di rote ci mbay mi ak jur gi naka la ñu ko transformer consommer ko waaye jëfandikoo ko te tamit loolu yëfër boobu. Mhm. day lu am solo ndaxte boo jàppee yoonu murit mhm. am mbay da ci am solo. d'accord am daal lépp luñ tëgg. dañuy xool suñu réalité. Mhm. ndaxte mbay moom murid moom mbay lañ ko mos a xamee boo gisee projet bu toll ni jumaa ji jumaa Tuubaa ji mhm. ah, gis nga jamono suñu Moodu Moustapha mhm. da ngi dem tundoo di di di di fa bay di ci dugal mhm. ah bi ñu demee tamit ba jamono suñu Faalu tamit dañ daa bay aliya di ki bay di ko dugal ci biir jumaa ji am daal lis eh, jullit murid yi moom affaire mbay dafa nekk ci seen biir ba nga xam ne nii bu ñu taxaw lu toll nii def ci mbay Euh, daal di ànd ak day dëppoog yoon wi. léegi beneen IFR euh, bi ñu taxawal. Mhm. mooy bi ñu tuddee métier et technologie. Ah. am daal jàngale ay métier ak technologie. Mhm. léegi ci biir IFR boobu euh, am na département bu ñu wax génie civil. Mhm. maanaam daal ñoo xam ne dañuy former ingénieur bâtiment. ndaxte wu si yoon wi ak askan wi. soxal na ñu ñu beneen noonu ndax da nga gis ay projets yu bari yoo xam ne nii ay gan dañuy ñëw loolu ba baax na wax nañu wax ñu baaxut mhm. waaye tamit suñuy doomu réew mi tamit bu ñu leen ci a gis dina baax léegi ñu jàpp nag léegi lu ñu gën a forme ingénieur bâtiment mhm. xëy ne tamit nañ mën a gën a utiliser expertise locale bi mhm. donc am na département génie civil ak département bu ñuy wax électromécanique waaw mooy euh, génie électromécanique nga xam ne nii affaire machine lañ ko jagleel beneen département boo xam ne ñu ko étude commercial am ah. daal jàngale commerce waaye niveau universitaire te xam nga commerce tamit ak murit mhm. comme ni bay amee doole ci yoonu murit tamit <laughs> commerce bi ci am doole ah. waaw loolu tamit am nañ ràññi boobu ñu defoon ko ci mhm. euh, yi ñu bëggoon mhm. am na ci biir aussi effet métier et technologie benn département bi tudd informatique ak télécommunication mm. loolu tamit day loo xam ne tamit lu am solo la ndaxte Euh, dem na dem boo xam ne ni lépp informatique mi ngi ci léegi moo tax nga tujj benn département ci UFR métier technologie mhm. tudde ko informatique et télécommunication mhm. bi mujj bi nag mooy département artisanat mhm. léegi département artisanat boobu nag dañ ci indi benn innovation ah. parce que dañuy seetlu ni euh, Touba ak euh, événement yi am màggal yeeg gàmmoo yeeg liñ ci jëfandiku jur bari na waaye dara yi ci génne amuñu amul exploitation daanaka dañ koy jaaya def ci ay kii conteneur ah. moo dem bitim réew te ñu jàpp ni mm-hmm. mën nañ ci tàggal ay xale mm-hmm. ba def benn industrie boo xam ne nii Touba mm-hmm. euh, ñoom seen spécialité mooy der yi yi def industrie ndaxte euh, am na kuy wax ni euh, li gën a li gën a li gën a soxla li gën a am valeur ci ci xar mi la ñu la gën a la la ñu gën a négliger. ndaxte der bi. Uh-huh. mooy dafa ay sac. Uh-huh. dafa la ay ceinture dafa yu uh-huh. baree bëri yoo xam ne nii. bu ñu trouvé stratégie valorisation. mën naa tax daal ba loolu kii daal. léegi nag euh, bu ñu génnee ñetti IFR yooyu. kon dañu am dañu am agronomie. ak métier et technologie. Euh, ak euh, IFR islamique et langue moom laa jiite woon. léegi am na ñaari institut. léegi institut bu njëkk bi mooy institut supérieur des sciences et métiers de la santé. Ah. boobu moom tamit ci biir université bi la. Mhm. boobu institut tamit lu am solo la. Mhm. ndaxte liñ ko nar a jàngalee. Mhm. mooy science infirmière obstétricale. d'accord donc ñoom xam nañu loolu lay institut tàmbalee la. formation yi tàmbali ci la bokk. ci bi ci ci wetu science infirmière obstétricale nag am na yeneen formation yu ci nekk comme odontologie mooy fajum bëñ. ak beneen formation yu wax pharmacie. ak beneen euh, bu ñuy wax médecine générale. léegi nag loolu institut boobu. moom lañ bëgg muy évoluer plus tard pour nekk fac de médecine te ñun suñu ambition mooy lënkale fac de médecine booba mm-hmm. ak institut bi mm-hmm. ñu lënkale kook euh, structure hôpital yi nekk Touba comme euh, hôpital Touba mm-hmm. pour dem créer benn CHU ah. centre univers hospitalier universitaire CHU ah, te xam nga foofu université lënkaloog ak hôpitaux rek mën naa jur CHU ñun ci loolu ci li ñuy dox mm. léegi bu ñu jëlee benn institut bi mm. mooy institut des langues et des maîtres du livre mm. bu ñuy former ay ay traducteurs ak ay interprètes mm-hmm. ak ay bibliothécaires ak ay archivistes moom euh, loolu moo tax ñu jóg mm-hmm. waaye loolu mooy li nga xam ni nii moom moo composé enseignement supérieur bi waaye comme ni ñu ko wax xamee rek mm-hmm. enseignement supérieur moom xam nañ ñaata branche moo koy tam moo koy tàmbali waaye fa mu fa mu yem moom mhm. moom loolu luy gën a dem di gën a créer day gën a dem waaw day gën a mhm. créer mhm. waaw léegi nag loolu moom daal mooy composant enseignement supérieur bi ci complexe bi mu tëgg ko nag ci tëgg tëgg bu am solo ànd ko enseignants yi def ko système LMD xool li nga xam ni moom la ñu laaj critères académiques yi ñu respecté ko mhm. tëral programme bi tëgg ko mhm. euh, ba nga xam ni daal mhm. euh, am nañ ki sax ay agrément ba ministère bi l'enseignement supérieur gisee sunu document ñu doon ko laaj agrément ci lu sukkandiku ni li ngeen def jaar na yoon ba mën leen jox agrément ngeen tijji faculté yooyu. d' accord d' accord léegi nag par où commencer maanaam ci hmm. yi nga fi lim yëpp ci hmm. wàllu nga xam ne dana dugg ci biir formation yi. ak hmm. offre de formation wala offre pédagogique bi. Euh, fan fan la ñuy tàmbalee. waa loolu tamit euh, bul am solo la. parce que day ni nga ko gisee day sumb boo xam ne nii. sumb bu am solo la. daa bay lu ñu bëgg lu ñu nekk ci programme yi. léegi nag xam ma am am njàng ak njàngale. Euh, da am stratégie. ñu mhm. nag stratégie bu ñu jël mooy. Mhm. Euh, tàmbali di yéeg ndànk-ndànk en puissance. cest à at mu jot ñu xool ci la ñu tëggoon lan lañ mën a dugal ba lépp mat. Mhm. waaye dañu jàppoon ni comme mi nga doo ko tàmbali. nga tàmbalee noonu lépp. ak euh, li muy laaj lépp. mën naa bañ a taxagun. waaye boo tàmbalee tuuti. arme nga yokku ca da nga dem a dem ba li nga sumb lépp mm-hmm. daal mu jaar yoon daal léegi moo tax ren euh, li ñu wax daal euh, topp ci aussi ndigal siñ bi mm-hmm. mooy bu fekkee complexe bi yëpp la mm-hmm. ñu tàmbali institut du Coran teg ci majalis léegi ci enseignement supérieur bi ñu tàmbali IEF islamique et langue ak teg ci aussi sciences infirmières infirmière obstétricale mhm. Mhm. Euh, ci institut supérieur des sciences et la santé science infirmière obstétricale nag moom pour xam naa jar nañu laagal wax ko ñu ñuy déglu science infirmière moom pour former ay infirmier mhm. ak ay infirmière la science obstétricale pour former sage-femme xam nga sage-femme mu métier ah, jigéen la ah, bu ñu nee science obstétricale rek mhm. loolu jigéen rek moo ko mën def bu fekkee nag science infirmière jigéen ak góor mën nañu ko def waaye science obstétricale moom jigéen moo ko def mhm. léegi nag ñaari filière yooyu lañ mhm. tijj ci science infirmière obstétricale ci yi démarré ci lay bokk daal ci yi démarré ci lay bokk ci lay bokk waaw euh, ci wàllug euh, partenariat aussi bëggoon naa ñu wax ci maanaam lëkkaloo nga xam peut-être ci euh, loo xam ne mm-hmm. étudiant bi su defee formation ba pare mm-hmm. dana soxlaa liggéey foofu mm-hmm. yu mel noonu tamit est-ce que yéen ngi ci dox ak fan ngeen ci toll waaw loolu xam euh, li ko li ko njëkk a wone mooy dèjà yoon yoon yoon bi tamit ba tey dama ah. ñëwaat ci yoon bi waaw ndax tey yoonu murid yoonu ubbeeku dëgg la donc yoonu ubbeeku nag mooy euh, lépp loo xam ne nii mën nañ ko def ay partenariat te mu dugg ci yoon bi te dëppoog lislaam yoonu murid dafay njëkk liggéey léegi nag ci biñ tegee programme yi mhm. ñu ngi basé wu ci mhm. LMD mhm. xam buñ ne LMD daa gën a insister ci mobilité enseignants yi ak étudiants yi xam ne nag dañuy fexe système boo xam ne ne dañuy recommander say enseignants yi dem ci yeneen université uh-huh. yeneen université tamit jóge feneen di ñëw dañuy recommande tamit ces étudiants. Mhm. ma dem ci yeneen université. Mhm. yeneen université tamit jóge feneen di ñëw. ndaxte bu ñu demee ba tàmbali. Mhm. Euh, ci kanam tuuti da gis ay naar yoo xam ne nii ay jóge Égypte wala Maroc wala feneen ñëw jàng si fii. Ah. da ngay gis tamit koo xam day jàng fii dem tamit Maroc wala Égypte jàng yenn module. loolu loolu donc système moo ko laaj. moo tax léegi ñun li ñu njëkk a def mooy. Euh, def politique boo xam ne nii dañ koy orienté partenariat tijjeeku wuti partenaire. partenaire nag mi ngi tàmbalee partenariat boobu nag mm-hmm. mi ngi war a tàmbalee ci suñu réew waaw ndaxte dañoo fekk yeneen université yu ñu nekk mhm. ay université Mame Cheikh Anta Diop ak mhm. Gaston Berger ak yeneen ak yeneen mhm. ak même le ministère de l'enseignement supérieur état bi ak université privée yi dëkk bi déjà am na université Cheikh Ahmadou Bamba ak yu bëree bëri yoo xam ne nii euh, njàng moom moo laaj ouverture léegi moo tax léegi ñun tamit suñu orientation bokk nañu ñoom am ay partenariat ay partenariat yoo xam ne ay partenaire académique la am njàng la ak partenaire yoo xam ne ay partenaire étatique la ak partenaire yoo xam ne daal bu ñu ñoom li ñuy def. Mhm. day méngoo ko lu ñuy def. loolu tamit lu am solo la. waaw lu am solo la daal mhm. euh, ñi nga xam ne ñoo bëgg a ànd ak ñun bokk liggéey bi. wala ñu mhm. def ay partenariat ñoom tam dañuy fekk si ñun lu ñu gëm. li gëm mooy lépp daal lislaam la. ñu ci lislaam ci lay sukkandiku. képp koo xam ne ñoo bokk gis-gis bokku lislaam euh, day day tax daal partenariat bi daal correspondre ak li nga xam ne moom la sëñ bi bëgg. ok euh, professeur ñu jeexale rek euh, question bi muy laaj bi muy euh, ci wàllug enseignement à distance. Mhm. tudd nga fi léegi lu lam ne wàllug technologie. Mhm. nouvelle technologie. Mhm. ak ni mu développé. ñu xam ne léegi am na étudiants yoo xam ne sax xëy fii la ñu nekk di jàngee Chine. wala ñu nekk fii di jàngee États-Unis wala ñuy jàngee Caire wala ñu jàngee feneen ak feneen. foofu tamit yan jéegoo ngeen ci dox. ci par rapport ak ay étudiants yoo xam ne xëy na ñu ngi ci yeneen réew bëgg a jàngee fii mhm. euh, te mënuñoo ñëw mhm. wala ay étudiants yoo xam ne ñu ngi fii di suivre ay cours en même temps bëgg a suivre ay cours feneen mhm. foofu lu ngeen ci toll loolu day laaj bu am solo bu dëkk ak jamono parce que jamono moom léegi lu bari numérique moo ko yore ah. lu bari la ñuy wax euh, virtuel moo ko yore ah. te enseignement à distance day loo xam ne nii innovation la ci njàngale mi te enseignement à distance dañoo koo xam ni lu am solo la ba ci ci biir complexe bi mm-hmm. ah, moo tax sa question am solo mm-hmm. am na benn institut buñ créé mm-hmm. ñu tudd ko institut de formation ouverte à distance boo xam ne ni lépp loo xam ne mooy enseignement à distance moo koy saytu léegi nag enseignement à distance nan la mën a amee solo ci ñun mooy xam nga aussi euh, bu amee université nii am na ñoo xam ni nii déplacé leen jël leen Maroc ñuy am billet ñu ñëw fii euh, ak frais yi muy àndal mhm. bari na bari goo xam ne nii boo mën mënee def enseignement distance moo gën a woyof mhm. nga xam ne mën naa nekk Maroc di jàngale muy jàngale mhm. étudiants yi nekk fii di ko suivre en amphi loolu day tax daal ñu gën a rationaliser suñuy moyens te moo aussi méngoog jamono te Covid bi amoon ci ginnaaw rek wone ne lu bare bare bari laaju ñëpp teew mën nañ koo jaay ci xarale yi daf ko daal maanaam daal enseignement distance tamit euh, mën naa am solo ak mhm. yeneen université ci àddina bi ak mhm. fu nekk même ci biir dëkk bi ah ñu sunu sunu sunu politique mooy mhm. fexe ba nga xam ne ni yenn cours yi magalis yi nit ki mën naa nekk Touba xayra wala Guédé di xool di suivre cours yi di suivre cours exactement si si daal loo wax ni daal euh, daal ñun dañ ko boole ci sunum njàngale mm-hmm. ci programme yi la bokk mm-hmm. ci structure yi la bokk mm-hmm. te am nañ sax un document d'orientation boo xam ne nii tënk nañ ko ba ci la ñuy waaj dox noonu pour xool ngeen anam la ñuy jaar pour que enseignement à distance bu comme ki tàmb rek ñu koy tàmbali d'accord d'accord mu ngoog kon euh, mu doonoon euh, professeur Mor Faye ñu koy sant bu baax a baax euh, mu àndoon ak ñun ci li nga xam ne moom mooy waxtaani moom nag moom mooy coordonnateur nekkit président bu conseil académique bu université Cheikh Ahmadoul Khadim teewoon fi doon ñu indil ay leeral ci wàllu Euh, programme bi nga xam ne si tër nañu ko ci université bi fas ko yéene nag doxal muy programme boo xam ne si à long terme ni mu ko waxee day mel ne lanti rek dañuy tàmbali euh, lu ndaw waaye plus muy gën di dem plus muy gën di ubbeeku Euh, loolu nag moom mooy intégration wu ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi ñi nga xam ne si ñoom ñooy jàngalekat yi ni ñeen di choisir euh, implication dugal timit yi nga xam ne moom mooy wàllu partenariat ubbeeku gi euh, jàngale mi timit à distance mu lu am solo lool ni mu ko waxee étudiant mën naa dëkk fii à Touba wala sax mu dëkk ci beneen région waaye ñëw Touba am fi chambre am feneen ba pare bu cours jotee mu ubbi ordinateur am suivre cours sans pour autant que muy déplacé yooyu yëpp ci développement la bokk yooyu yëpp ci ak dox la bokk mu wane ne université bi daal c'est une université du futur maanaam lépp loo xam ne si rek université yu dox yu mag yi euh, ña ngi koy doxee euh, bi incha allah fas na fa yéene yegg muy jéego boo xam ne si jéego bu am solo la ci wàllu enseignement ci euh, fii ci Sénégal ñu ngi koy santaat di ko jaajëfal bu baax a baax baax du am ñàkk mën naa am xëy na feeg ñu yegg ca bés ba mënees na ci yeneen i jataay ngir leeral yu gën a xóot incha allah ñu leen di sant leen jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullah واجعله دابا مسكن تعلم وموضع الفكرة والتفهم واجعله دابا مسكن تعلم وموضع الفكرة والتفهم